Rosemary en dehors de ça <laughs> Mado la ñuy waxtaanal Pape Samba. <laughs> au ka où comprendre nga. ah léegi on va parler de ay astuces dont bien-être. Mado mhm. conseil pratique. ci période du seddaay bi nga mhm. xamante ne ngelaw daf lay gaaw a dugg. soj daf lay gaaw a dugg et comme mhm. je disais tout à l'heure boo nekkee enceinte pour que nga. naan garab ça c'est tout un problème. booy mhm. xool médicament yëpp dañuy def grossesse et allaitement ñu interdire la ko wala ñu déconseiller la ko. effectivement Bijou donc comme ni nga ko waxee on est en période de froid mais malheureusement dañu gis que dafa am benn feebar boo xamante ne la plupart nekk na euh, euh, li ñuy naan premier taux de mortalité de femme li nga xamante ne moom moo di euh, maternelle parce que la plupart dafa am ay dames yoo xamante ne bu seddaay bu jotee dañuy am lu ñuy duppee éclampsie donc éclampsie nag mu nekk benn jàngoro boo xamante ne dafay sonal bu baax. femme enceinte ci période de sedd bi euh, ba tax na dañu demoon seeti kenn koo xamante ne sage femme la di wuyu ci euh, li nga xamante euh, di wuyu ci turu Rokhaya Thiam mu expliqué ñu bu baax li nga xamante ne moom moo di éclampsie boobu nga xamante ne c'est dû à la période de froid rawatina tamit femmes yi nga xamante ne c'est des femmes asthmatiques naka nañu war a comporter ak yan conseil yoo xamante ne war nañ ko mun a tenir par rapport à cette période là pour mën a mucc ci lii di jàngoro boobu nga xamante ne ni ma ko waxee woon sànq rek euh, nekk na li gën a faat jigéen yi nga xamante ne dañu wérul kon li ñuy def rek dañuy àndandoog euh, Pape Samba xool élément bi ñëwaat. surtout pour suñu ñi nga xamante ne ñi ay sénégalaise dañu xëy na xamuñu sedd nu nu muy nu muy def ci yaram tey tamit euh, bu sedd amee xëy na du ñu am yëre yi nga xam ne sax c'est adéquat pour ñu mën ko sol bu baax a baax mais ñun ñi nga xamante ne ñun ay sage-femme lañu li nga xamante ne ñi moom la ñuy constaté ci période bu sedd euh, mooy que ne dafa am euh, ay jàngoro yoo xamante ne nii baaxul ci jigéenu wérul te ci sedd lañ koy faral di gis maanaam muy éclampsie éclampse nag bu koy wax hypertension la ñuy wax ndaxte hypertension la maanaam tension buy yéeg la boo xamante ne day ànd ak euh, daw si day am xorom tànk yi dafay yi mën na ci sañe mën na ci loru doomam loru ci te loolu dafa nekk loo xamante ne nii dañ koy faral di gis ci période set suñu mbokk jigéen ñi su jigéenu wéru ñi di leen wax ne su fekkente ne ñi ngi am bopp buy metti wala ñuy am xol buy tàkk wala ñuy seen tension di yéeg seeni tànk di néewi nañu dem hôpital suñu demee hôpital kañ fay fekk dana leen diagnostiqué xool leen teel leen a référé bu dee sage femme la dina ko teel a référé bu dee gynécologue la dina ko teel a jël en charge ba nga xamante ne bii du yegg ci complication yi nga xam ne mën na ko lor wala mu lor doom éclampsie moom dafa nekk jàngoro joo xamante ne bii mag ñi sax dañ koy tudde xorom mais du ay problème bu xorom ak yooyu parce que ñoom dañ naa diw dafa xorom léegi mën nga amee éclampsie ñu bàyyi la ca kër ga naan la bu lekkati xorom sa tànk yi dafa sadd bu lekkati xorom ñàkk a lekk xorom boobu faj problème wala nga amee éclampsie bi sa tension di yéeg ñu ne la bu jëlal garabu tension yi nga di ko naan alors que problème bi du tension bi mooy résoudre problème bi mais doom ji juddu lool mooy résoudre problème bi donc loolu képp ku mu dal da nga war a teel a dem hôpital ci sedd bi la ñuy gis ne ci lay gën a bari ci période sedd lay gën a bari ci lay gën a sonal jigéen wéru te léegi sax dañuy dem ba wax ne léegi hypertension moo nekk léegi mu ngi tendance su nekk première cause de mortalité maternelle parce que nit ñi dañuy amee tension duñu dem hôpital nit ñi ko gën a mën a aaree nag mooy ñu def seen consultation prénatale yi normalement soo nee lor demal hôpital ñu seet la buñ la seetee xam ne dangaa ëmb nga commencé sa visite prénatale yi rendez bu ñu leen lay jox nga di ko respecté ni mu ware su ko defee jafe yooyu yëpp sax ki nga xam ne moo lay faj dina mën a gàttandu waaye jafe-jafe parce que kat consultation prénatale du dara lu dul prévenir complication yi nga xam ne mën na am ci ëmb. beneen problème bi ñuy ñëw tamit euh, mooy ci problème mu Covid bi parce que du ñu wax te waxuñu ci Covid bi ndax Covid bi mu ngi fi demagul kenn wérul kat. grippe kese kese kese kese mën na ko indil ay jafe-jafe te bu ne gis na gis na ne ci période froid bi ci la soj mi di bari ci la grippe di bari ci la que nag euh, soj mi jigéenu wéru dañuy soj seen bakkan yi di fatt bu fekkente ne yow nag da nga nekkoon koo xam ne da nga asma woon avant ëmb bi loolu da lay complication bu fekkente ne tamit yow si sa bopp sax da amoon ay problème sinusite ay yooyu sedd bi bu duggee say bakken day gën a fatt te nga amoon problème respiratoire yooyu yëpp daf koy yokk kon nag ñuy ñaax jigéen ñi daal ñun daal li ñuy ñaax jigéen yu bëri mooy mesure préventive mesure préventive bi mooy ñu góorgóorlu ba li nga xamante ne moom la ñu sàkk alors femme enceinte comme ni mu ko waxee tu as besoin de dem sa ay visites c'est mhm. très important primordial mhm. respecter les visites mhm. c'est pas pour rien que ñu leen di wax ngeen dem defi ko ndax à chaque fois y a des analyses à pour xool ndax seen xorom euh, fi mu toll baax na pour xool na bébé mi ngi évoluer bu baax <laughs> miin nga ko yooyu <laughs> moo tax conseil bi kii kañ moom dama ko war a wàccee rek macha allah tey moom je pense que dina ko développé moom yéen daal mën ngeen tuddee ëmbkat bi nii non mais te xam nga li loo dundul daal dara doo ko mën a wax macha allah. donc yàgg fi ndax loolu soxlaa nañ ko. say thank you. <laughs> thank you I'm proud. waaw <laughs> ak sama ndawle bi ak aw siñaate maa ngi ko ci nuyu tamit. ci rubrique bi waaw aw siñaate. <laughs> en tout cas yaa ngi tooñ mais vraiment c'est important. nit yi dem defi seen ay visite si mm-hmm. lañ mën a desalee yii yëpp nga mm-hmm. xamante ne. Euh, moom mooy feeñ dañ lay xoolal sa tension fan la toll. Mm-hmm. Euh, xoolal euh, xoolal lépp sa sucre lépp dañ koy xool su ko defee bu fekkente ne am na benn affaire boo xamante ne dafa manqué rek ñu mun ko remplacer et puis Mado lenn lu loolu nit yi di def parfois da ngay mm. gis euh, automédication. wala naanaan lii baaxul na ci man faut surtout bu fekkee nit yi seen tànk dafa neyoo parce que comme nañ koy waxee la plupart boo amee éclampsie euh, li ëpp da gis ki saay ay gonflement des pieds sa tànk di sadd wala di neewi donc nag léeg-léeg nit yi dañ lay conseiller naan la jëlal euh, xob bi boo ko baxalee nga naan ko wala nga jël li nga xamante ne moom moo di garabu tension alors que ça n'a rien à moo tax lu ne mel bu la dalee rek a dem seeti ki nga xamante femme bi nga xamante ne moom euh, moom moo lay seet donc comme moom ni ko waxee bii je wax ko ñu gën ko dëggal rek mooy consultation yi il faut nit yi di ko respecté bu baax a baax parce que loolu moom moo lay dimbali prévenir lépp loo xamante ne moom moo di problème boo nar a am dina ko mën a kar jàppale la ba nga xamante ne doo mën a ci donc ba pare am na ñenn ñoo xamante la plupart dinañ am ay douleur yoo xamante ne méttitu bopp da leen di dal et que wax nañ ko n'importe quel garab boo ko euh, waruloo ko naan donc sur ce da nga dem seet li nga xamante ne moom moo temps aussi na nga dem seeti li nga xamante ne moom moo di sa médecin parce que war na mun a cest à médecin miinal mhm. médecin bi bu yeboo rek ñu amee la di la toog di la wax quoi ñëw dugg na fi génn fii mais lu mhm. la jaaxal demal si sa médecin c'est ça moom rek moo la war a mun a conseiller lan nga mun a jël munul jël def directement jël benn médicament nag Dakar daf fi bare Sénégal comme ni mu koy un deux trois ñu na la baxalal naan waaw baxal naan xob yooyu. naan dafa ah. graaw mm-hmm. uh, na parce que uh, yaram bu nekk dafa am benn quality mm-hmm. quantity of stuff boo xam ne. Mm-hmm. <laughs> da nga ko war a am coro baal nañ la léegi nga. yéen rubrique bi concerné <laughs> wu leen. waaw merci uh, jërë ngeen c'est vrai lu mu wax dafa am. bii nga war a jël ñaata xob yi ak reen yi ñuy jël di ko naan mun na def benn effet sax. oui bébé mu mun na bañ a grandir ci biir mun nga dem ba après yow sax mun na la jox ay copain voilà eh, moo baaxul ci dara mais di fàttali aussi comme ni ngi koy wax rek ñu ngi ci période seddaay tamit bu ñu fàtte ginnaaw éclampsie bi ñu doon waxtaane euh, mi ngi doon jox conseil aussi femmes yi nga xamante ne y a beaucoup yoo xamante ne c'est des moom itam mi ngi leen di conseiller nañu bàyyi xel ci loolu bu baax a baax bu fekkee dañu wannu lor ñu gis ni soj nañu aussitôt euh, bu ñu ragal dem ci fi nga xamante moo di ci hôpital yi wala ay narinam coulé wala muy sëqa tuuti sax ñi ngi xalaat li nga xamante moom moo di Covid de ce fait ñoom dañuy ragal a dem et puis nag après mën na leen jural ay gàllankoor yoo xamante ëllëg ça peut même causer la mort de la maman rawatina ki nga xamante ne moom moo di liir bi nga wan pense que c'est très important ci tënk rek mooy ci seddaay bi ñu nekk ne nit yi dem seeti euh, wala jigéen yi wan lori euh, nañu faral déjà sax di couvrir sax surtout ces femmes là parce qu'elle a insisté mooy ñi nga xamante ne dañu asthmatique nañu gën a fonk li di couvrir seen yaram bi moytu di sol lu dis elle a vraiment insisté sur ça waaye li ci gën daal mooy lu la dara bu la dara dalee rek na nga daw seeti ki nga xamante ne moom moo di sa gynéco et euh, boo xëyee yóbboo sa yaram sax mhm. na ñoo xamante ne tamit a un problème mhm. euh, ngi ci nekkuñu biir Dakar Sénégal mhm. yamul Dakar comme ni mu koy waxee ñi ngi ci région yi ñi ngi ci dëkk yoo village yoo xamante ne nii pour nga egg ci médecin bi tey di nga yàgg ci yoon bi yàgg boo xam ne tu préfères bañ a dem am na application application bu ñu def jox ko bàjjanu gox yi muy application njureel jéem leen a rapproché wu ci seen ay bàjjanu gox ñoom bu fekkente ne am nañu ko médecin bi dina la mun a defal consultation à distance avec l'aide euh, des bàjjanu gox su ko defee ñu mun leen a wax lan ak lan ngeen mën a def jigéen moom bu xasee nekk enceinte il faut absolument que ñu suivre ko bu baax a baax a mm. baax a baax il faut absolument que mu respecter ay visitam noonu rek la mën a sauver boppam sauver bébém ba dara du leen jot mu accoucher euh, daal di ciy mucc et puis ñu ñu mën a egg niveau bi nga xamante ne États-Unis wala Europe egg nañ fa mm-hmm. actuellement par euh, exemple nul ne décède ici en accouchant loolu la ñu bëgg mu nekk suñu slogan ñun tamit fii nga xamante ne moom mooy Sénégal même bu dee dañ lay wax sax boo nekkee enceinte benn tànk bee ngi àlaxira benn bee ngi àdduna bëggatuñ dégg loolu bëgg nañ ñu ne fii kat taux de mortalité euh, ci jigéen boo xamante ne mi ngi accouché amatu fi jeex na wàcc na loolu mooy suñu objectif merci beaucoup Mado si sujet bi fantastique c'est